gi nga xamante ni moom la jël euh, mujjee ko fay lu toll ci euh, ñaari xar donc loolu aussi jàngal la pour ñu def ko ndax koppar gi euh, daanaka tey borom al yu alal yu bari boo leen jëlee bu ñuy jënd xar da ngay gis ni seen bët day jéggi ay xaru cent cinquante mille ak i deux cent mille mais lu ko ëpp lay jéggi donc lu ñu mel dafay wane que ni voilà ku ci nekk la ca sa poche la la tolloo sa poche mën nga ci mën a am xar. waaw soxna Diarra jërëjëf. Mm-hmm. defe naa laaj bu am solo la balaa may euh, tontu rek ñu préciser euh, que euh, voilà li ñu doon wax léegi Pape Mboup Parme maa ngi lay nuyu sama sama benn suñu benn soppe la bu nekk Parme Italie waaw moom daf ñuy topp tout temps mm-hmm. waaw ñuy préciser nag ku mel ne pur nee na pur moom naa rien demandé mais wax na dëgg. <laughs> waaw waaw analyser wuñ aussi waxuñ ne kenn day laaj. waaw loolu aussi c'est à préciser. taxaw seetlu la euh, taxaw seetlu général la. ah mais euh, singlé wuñ benn parti waxuñ ne benn parti day laaj aussi donc loolu c'est à préciser. Mhm. mais ñu ngi koy nuyu moom Pape Mboup nekk depuis Parme Italie. Mhm. Euh, à côté Malick Mbaye nekk Espagne sama copain bu ma lakkal ah <laughs> sëñ Malick maa ngi lay nuyu. moom daf may xëy am lu mu ci teg ne ma doo ma nuyu. lam ca teg nag ñemewuma ko wax ci télé. waaw ndax comme sama diaspora bi yow rek la ñuy sama ami d'enfance la <laughs> mais amaguma xar nag yónnee ma lu takku ma jënd ci xar. ci moom nga ko waxaale ni président ci moom nga ko yaakaaree woon waxaale ni président <laughs> jaaro xam nga image président bi. Mhm. Euh, dafa laaj jàngat. Euh, boo xamante ne wax dëgg yàlla il faut que nit ñi bàyyi ci xel d'abord un président de la république nit la. Mhm. c'est un humain. <laughs> du extraterrestre du du du nit la nit nit dafa am yow ay act ay yoo xam ne c'est naturel ci nit ki donc yàlla na mu doxantu xool li mu bëgg taxaw waxaale buñ jubóoyee mu fay dem loolu loolu c'est naturel mm-hmm. c'est naturel <laughs> c'est naturel comme yëpp ba pare mm-hmm. man li ma ci gis mooy enfin ñi nga xaar ba xam la suite mais depuis mu démarré rek léegi moi j'ai vu un président très ouvert accessible aussi mm-hmm. parce que ay la yéwén nag kilifa la président de la république la bu ko neexoon yónnee ku xam Bassirou Diomaye Faye nag xam ne wax dëgg yàlla amul problème xar xaar nag mm-hmm. très sincèrement mais am na lu mu bëgg a wane loo xamante ne d'abord ay nit lañu dañoo war a wàcce suñu bopp ànd ak humilité mm-hmm. et daf ñuy renvoyer ci la première correspondance bi mu adressé woon à l'administration le terme humilité def ci ñëwaat lu baree baree bari maanaam nit ñi nañu wàccee seen bopp. Mm-hmm. quel que soit galon yi nekk suñu mbagg yi waaye waaye nañu wàccee suñu bopp te xam ne ay nit kese lañu. Mm-hmm. kese c'est moom mii njiitu réew mi moo mën a taxaw ci daral dugg tànk yi poussière mu taxaw di waxaale. ah sàkkaa man baadolo bi nga xam ne man toju ma fenn. sa poche yi dara nekk gu ci. nga sa poche sama poche yi dara nekk ci nag sëñ bi fay. ci gars yi ko yaakaar. ci moom laa ko yaakaaree. <laughs> sama benn xarit nee na waa booy parce que du ñu wax Diomaye mu dënd benn xar rey yóbbaale ñu ñun ñëpp. ñu <laughs> am ma ne ko pourtant loolu saa sa fee de. idée moom seen ñëpp xaju. loolu dañ koy def de. dañ koy def jënd benn xar rey yóbbaale njaboot gi yëpp. awaay <laughs> ah, waay président moo def loolu. ah ñun ñun baadoolo yi nga xam ne mooy loolu ah. donc. beneen bi mooy sénégalais yi nañu nañu nañu def lu ñu mën aussi président da nga waaj nee na ko deux cent mille benn bu nekk ma ngay waxaale <laughs> te yàlla seede na ne mën na koo fay waxaale dara nekku ci mais li muy wane mooy nit ñi nañu def lu ñu àttan bu ci kenn def loo xamante ne ëllëg dalay indil ay problème au-delà de, de voilà de leçon d'humilité bi mu joxe mm-hmm. ak ouverture d'esprit bi mu joxe euh, nit ñi aussi nañ ciy def lu ñu àttan def ci lu ñu man c'est président mooy waxaale xarum 200000 man xaw ma fu ma jëm man. waaw ah, moom nee na sa ah. waaye bu doon man sax 100 laa koy fay jëm kaw <laughs> xam nga jënd ak jaay moom waxaale la rek. Mhm. mais daal vraiment gis nañu ci moom humilité boo xamante ne wane na ne gëw ma ne dina nekk un président fermé. très sincèrement koo xam ne day jafee gis waaw koo xam ne day jafe gis yaakaaruma ko. Mhm. déedéet parce que nag ñi ñu fi jëlee aussi loolu bokkoon na ci seen cat. danga leen di soxla loo xamante ne donte yëfu réew mi la sax mais pour nga gis leen c' est tout un problème moi j'ai vu beaucoup beaucoup d' immigrés yoo xamante ne dañuy ñëw ak seen ay projet te le paradoxe mooy ñoom ministres yi ñoo leen di fekk à l' étranger naan leen ñibbisi leen ñëw leen investir seen réew. Mm-hmm. mais ñoom bu ñu ñëwee ak seen projet. Mm-hmm. mais pour ñu gis leen ñoom sax c' est c' tout un problème. ñoom ministre yi laa wax de waxuma premier ministre bi waxuma président de la république na mhm. donc loolu problème la donc vraiment daal ñu ngi koy féliciter encore une fois mhm. ci leçon d'humilité bi muy continuer di wan sénégalais yi mhm. def na ko fi defaat ko fi def na ko ay yoon yoon wane yar wane wane ubbeeku wane wane vraiment ku wàcce boppam wane na ne vraiment daal affaire bi yéen ko daal waaw te loolu nag dafa am solo au delà de tout nag nañ xam ne nit la comme comme nit yëpp donte nag mooy suñu président de la république ñun ñëpp am na droit génn doxantu mhm. président yu bari nag dañ koy def mhm. sauf que guddi gi lañ koy def et que bu ñuy génn souvent ay véhicules banalisés la ñuy dawal dawal xool dëkk bi yooyu voilà Ablaye Wade si vous vous rappelez doon na fi dem fii pour wàcc ci foofu ci maire yi di waxaale mango Amadou su ko demoon na ci ah. daara sax jënd xaru 60 000 mais xaru 60 000 am ah. na fi mais vraiment bravo xaru 60 000 am na fi bravo à notre président may nañu fit may nañu fit ñun ñun ñi war a ñu waxaale ah. waaw may nañu fit nekkatul kirib daa déet mukk mukk dee leen waxaale ku waxaalewul xam am si say vidéo bi nga xamante ni gis nañu ko président Diomaye Faye ca diwaanu Soumbédioune Euh, euh, man li ma ci gën a neex sax bokk na ci dooleel gi muy dooleel càmb bi. Mm-hmm. pour man leçon de vie la jaar. Mm-hmm. parce que c'était pas évident euh, comme li ko Socé waxee léegi mais président de la république nit la. Mm-hmm. nit la il n'est pas un extraterrestre nañuy faral di bàyyi xel loolu parce que bu fekkente ne yow ba nga soxlaa baatu askan wi da dugg ci askan wi. gox goxaan bu nekk nga dem fa ku nekk nga jël jël xale yi téye fopp. ah boo rombee mag ñi nuyu mais ay la yoween bu ñu fekkente ne loolu yëpp def nga ko bañ far la mm-hmm. mais bu fekkente ne yow par exemple peut-être immunité mi ngi ci yow mais bu fekkente ne fal nañ la da war a continuer loolu parce que askan bi loolu la soxla président boo xam te leen a jege mm-hmm. temps Abdou Diouf ñu ngi doon wax Abdou Diouf bu doon wax naan xaw moo ne meew bu jar juróom am na xaw mu suukar bu jar juróom mais man loolu bañ ma ko dañ ma koy nettali dama naan non Pierre Abdou Diouf yaboon na leen. <laughs> parce que mënu ma concevoir yow ñu jox la réew yow cela veut dire am na ci te ne askan bi ñu ngi koy dund wala am na ci loo xam ne askan bi ñu ngi koy dund te yow xamuloo ko. Mm-hmm. et loolu c'est grave ci ñoo xam te ne ñoom ñoo la fi teg damay faral di wax naan njiitu réew mi ñun ñoo ñun ñooy seen chef parce que ñun ñoo tax ñu ñu ñu nekk président. Diomaye mm-hmm. bu faloo mais sénégalais yi ñoo ko wóolu fal ko mu am 54 pour cent. daanaka deuxième tour amul premier tour la daal di jàlle donc kooku ba fekkante ne sénégalais jox nañ la confiance ay la yow nanga leen ko war a delloo delloo bi mooy li nga xamante ne la askan bi soxla hmm. jege bi nga xamante ne la askan bi bëgg seen diggante ak ñoom nga daal di koy amal dafay indiwaat leçon de vie parce que bu ko neexoon peut-être mu toog commandé xaram wala xar boo xamante ne par exemple nekkul suñu suñu dëkk lay jógee mais mën na xar boo xamante ne peut-être xaru xaru xaru xaru xaru Mali yeeg yu xaru malien yeeg yooyu wala mën naa jël xaru euh, xaru xaru États-Unis ne leen ma xaru États-Unis ñu dugal ko avion xam nga yooyu yëpp après charge lay doon <laughs> mais wan na ne ne vraiment ñi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi mën mm-hmm. nañoo def loo xamante ne ñu mën nañ ko consommer local bi moom dafa mel ni ñoom dañoo loolu moo leen tax a jóg parce gis nga la plupart du temps moom président ay li nga xamante ne bu amee rarement lay sol costume da ngay gis tenue africaine lay sol te mm-hmm. loolu yaakaar naa am na ay mes am na message boo xam te ne mu ngi koy lancé même su fekkente ne nit ñi rendre ko ci compte mm-hmm. nit fois dama koy wax mais président nit la du jinne du rab te gis nga bu fekkente ne geste boobu def na ko dafay indiwaat li nga xamante ne mooy di sénégalais yi. parce que bu fekkente ne dañ ne président mooy waxaale ah kon nag man mii nag mi nga xam ne ni man mii faqiir laa sama loxo jotu sama ginnaaw. man su ma bëggee wax sama ginnaaw gi su sugoo yi jël sama loxo tegal ma ko mu yegg xam nga ne kon fi ne nii man pare naa pour waxaale. et puis tamit dafay wane ne. Hmm. ku nekk ci sénégalais yi na nga def loo mën. wax loo man parce que tabaski bi neex na trop dafay jeex. Mhm. mais nag n'empêche que nañu def lu nga xam te ne buñ tëddee suba. ñu attan ko parce que am na ci ñoo xam ne jouru tabaski ci boppam bu ñuy commencé sax di di lekk la ko yàpp ñu ngi koy lekk de mais seen seen xel mi ngi seen xol mi ngi lekk de mais xel mi lekkul. Mhm. parce que ñu ngi xalaat suba. la ma war a fay gannaaw si ba la ma war a fay surtout ñun jigéen ñi. <laughs> ñu wàññi cheveux naturels yi li ñu mën ñu def ko lu ñu mënul ñu toog xam ne mënuñu ko parce que lii message la bu président di lancer suñu góor yi bi muy lancer la. Mm-hmm. ak di jënd xaar dong la mais am na leneen lu muy mm-hmm. undu ci biir. Mm-hmm. dafay wane ne bépp sénégalais moo xam nga nekk ci biir réew ak ci biti réew bu fekkente ne yaa ngi def defal loo mën wax loo mën boo tëddee nalaw. et que ñi nga xam ne itam ñooy borom xar yi j'espère que président loolu ne ay góorgóorlu lañ ba léegi ñu ngi daw. di jënd mm-hmm. xar njaboot gi di xaar soxla yi tamit dañ. tabaski day jeex. soxla yaa ngi fi di continuer. Mm-hmm. nañ bàyyi xel loolu bu baax a baax dana cher. Mm-hmm. parce que nag très honnêtement il faut que aussi ñu parce que xam nga xar boo koy dugal ci réew mi da ngay fay ay taxes xamoon nga looloo. boo demoon Mauritanie fii yëpp fa camion xar bu ko dugal ci réew mi. tet bu ne da ngay fay ay taxes par tet taxe boobu état bi daf ko dindi ren. yombal xar yi mu dugg si. uniquement pour xar bëri. feeñ na parce que forom léegi nag éleveurs yi laay waaye dimbali leen nu ngir yàlla. Mhm. bu leen ci laxas jaan comme li gars yi di wax. comme état bi def na effort wax dëgg yàlla dindi taxes yi ba nga xamante ne dugub bi dina yomb dina bëri.

taxe yi wàññeeku. Hmm? fay ñu taxe xar war na mën a yomb ci mim réew. waaw sagam président fay na 150 mën ngaa fay 110. ba 100 mën na 110 yoo xam sax mën naa fay 100 sax. ba 100 waaw. sugu ba dañu jaay la am kuy nag. <laughs> la fay baal ma fay 100 rek. <laughs> ci ful la waaw. yàlla baax na euh, professeur comme ni ko euh, Ami waxee que ni euh, vidéo bi nga xamante ni dafa viral ci réseaux sociaux yi ma sàcc benn tiktoker li muy wax ñu gis président bu nga xamante wàcc na ci terrain bi ca Soumbédioune Safontek ak ñu nekk acteurs yi nekk ci diwaan boobu lay jënd xaar ñu gis xaar yi mu daal di jënd franchement mu nekk xaar yi nga xamante ni. ni li muy wane bari na. que mhm. na ci nañu def lu ñu lu ñu daal di àttan sagam moom moo mën a jënd xar yooyu ñun war nañu mën a ah, tamit wàññi suñuy bëgg-bëgg ba tabaski gi li nga xamante ni moom la laaj suñu mën ko matale sans pour autant ñu ñu ñu rey suñu bopp ñu sonal suñu bopp. tout à fait tout à fait je pense que mais tamit après war nañ ma wax lan moo nekk ci daral boobu de. Mhm. Macky fa la doon jëndee xar. ah bon. Mhm. su mbéjoon. non non daral boobu président taxaw. Euh, ah damay bañ a bergerie boobu noonu. d' accord fa la fa la Macky doon jëndee pourtant Macky daan daan na jëndi de. daan jëndi de mais xar yi mu doon jënd nag. daan cher waaw da doon cher mais même même même même waa ji même waa ji. Galoya. waaw Galoya la bañ a def rek. pub laa doon bañ a def yaa ngi leen di defal di jaar di jaar service commercial. jaara damaa bëgg après ñu dem rek ñu woo ñu may ñu xar. nuyu Awa Awa Anne je pense waaw est Awa si je ne me mhm. euh, famille boobu la bokk. elle est d'ici même à Guédiawaye. d'accord. Euh, bon. Euh, waaw après nag war nañ ma wax bergerie bi lu fa <laughs> dama fay romb parfois damay am côté boobu activité. Mhm. am na benn année je pense que daaw si je ne ma dem fa après taxaw di waxaale man tamit. Hmm. waaw ñaata nga fayoon. ñaata nga fayoon yow. quatre vingt dix nga fay. quatre vingt bu dëgër fii <laughs> si daaw je pense que. wala bi gëm naa ne 45000 la yoroon ci poche bi. <laughs> kii nee na vingt xaru 25000 lay wër ay wayam bi yow di nga Ousmane Fall bi maa di teel am. waaw <laughs> ñu ngi leen di ñoom ñoom waa Galoya ah. <laughs> euh, voilà euh, bon je pense que day nekk loo xam ne comme ni ñu wax rek dafa naturel. Hmm. dafa naturel man am na yoo xam ne su ma ko gisee nit nit def ko du ma bett trop parce que dama naan humilité bu ko doomu aadama amee rek euh, voilà. lu nekk lu mu def rek warul warul bett ñu bëri. Mm-hmm. man man man dama xaw a mel noonu moo tax genre yi voilà du extraordinaire trop ci man euh, taxaw voilà waxaat te bon man la président Diomaye xam naa ne bu dul woon protocole présidentiel moom kese mën na ànd. Mm-hmm. mais nag xam nga prési mm-hmm. président ah, institution la sécurité bi gars yi dañuy ñëw. gars yi du reetaan sax kii xool boor be kii xoolu xar bi sax. Mm-hmm. gars yi mën nañu la tiim ba kii du xam xar bi nga kii nu mu ñi ànd ak yow nu mu mel donc c'est ça euh, après nag bon. man nag damaa yaakaar ni ah waa ji est-ce que defalu président foofu xam euh, <laughs> naa su ma deewoon fii laajte xar yi. est-ce que xam naa daa tiit rek mi war naa ëpp cent cinquante war ne ko cent mu ne ko waa <laughs> waa ji de gëmeewul sax góorgóorlu yi rek la bëgg a dimbali. ah waaw waaw message message la tamit bon. Mm-hmm. Euh, normal na parce que xam nga léegi tamit gars yi da ngay gis ñi ngi gis xar sax tiit. ba a waxaale lan moo tax mooy li ci doon nekk yëpp li ci doon laxasu yëpp. seeraay bi seeraay bi mhm. dafa dem ba xar yi sax nekk mit yow boo xoolee yenn yi sax doo sañ waxaale boo xoolee yenn dara li doo sañ a dugg. pourquoi mhm. pas donc donc lépp mën na nekk ah. Mhm. lépp mën na nekk message buy jàll la mais aussi euh, euh, moom naturel la euh, lu ci ëpp parce que ñëpp xam nañ ni daal vraiment. Euh, président Bassirou Diomaye ku ku ku ku vraiment ku modeste la. Mhm. Euh, ci waxin bi ci doxin bi yëpp day feeñ. donc voilà bon message buy jàll nag sénégalais Amina wax na ko euh, tabaski dafa nekk benn événement boo xam ne c'est c'est vraiment une pression sociale. Mhm. pression sociale la liñ ci liñ ciy namm dafay bëri liñ ciy bëgg a def dafay bëri mais tamit liñ naan wét gore wétaliku gore ah. Mhm. voilà surtout yéen peut-être voilà mooy mooy li may wax rek dafay am ñoo xam ne daal euh, xam nga matuivisme baaxul le matuivisme. matuivi mhm. day dem ba nekk doctrine gis leen ma mbaa yéen a ngi may séen mbaa mhm. may séen. xam nga li la Balla waxoon tafaatin yaa ngi may séen yaa ngi may donc donc dafa am loo xam ne tey jii nii je pense que war nañu yegg foo xam ne dinañ ko dépasser tey jii euh, maa ngi waale waa diaspora bi mhm. passage ñoom am na lu ñuy daj. pourtant euh, am nañ ko mën nañ ko mais da ngay gis ñoo xam ne ñu ngi foofu du nay da gis ñoo xam ne ñu ngi foofu du parce que bëggu ñoo joxe xaalis bi mais dafay am loo xam ne dañ koy bëgg inculquer mu nekk des valeur parce que yàq tey jii nii euh, kenn salué ko. ñoom dañuy gis les occidentaux wala ñu am feet mais da ngay gis koo xam ne euh, il est un dafay réserver xaalis fer pour lii pour lii pour lii pour lii. Mhm. cest dire que du nekk ay imprévu du ci dolli loo xam ne bokkoo ci. Mhm. donc donc donc c'est un message fort mais na c'est un phénomène social nañ ko nangu d'accord mais je pense que war nañu mën a dépasser yenn yi. war nañu d'accord fet la nag ku ci nekk nag am nga droit jënd sa tissu mettre quinze mille jënd sa mhm. tissu mettre quarante mille mhm. fay ñëw mille mais moom nga mën moom nga bëgg moom nga namm mais mhm. aussi noonu la ki nga xam ne tamit moom bu dee mettre mille cinq cent la mën a jënd mën na ko jënd je pense que voilà le beau daal ce n'est pas vraiment dans l'objet regardé mais c'est dans les yeux de celui qui regarde. kii mën lii mën na rafet ci kii. mën naa ci man mii mën naa teg cheveux bu cher. mu ngi noonu nga gis ko peñu mu lii si ñu topp kooku ba mu. ñu topp kooku donc donc donc donc donc donc donc c'est ça. mën nañu dépasser yenn message nag bu foor la jàllale. Mm-hmm. que ni ah man bu dee président may waxaale xaru cent cinquante mille. pourquoi voilà man nag soose damay laaj euh, xaru yi jar million yooyu. Mm. bon je ne ñi nga xam ne ñooy def euh, élevage. tirage. ku ci nekk am nga ci droit d'ailleurs sax am na benn circuit boo xam ne noonu la ñuy doxee. Euh, gars yi di jël ba ci pitax sax na ay pitax. yu jël 300 mais xar yooyu pour lekk kese la wala. donc léegi nag man dama ni est-ce que ñoroo ci biir. mi naa laa bëgg ah boobaa di nga am xar mu ah. baax. soose doo wax ci ñii nag internet yi nag soose waxal nag. <laughs> am na solo nga xamu soose nag ah, yaay kilifa gi waxal. Ah. yàlla na ko am. <laughs> comme xar mu xar mu toll ne yow la bëgg. Diop Khadim nee na ba. yàlla na ko am opposant yi du ñu def marche di critiquer xar mi. xar mu ah, tam ñu ne tam ñu ne xar mi julliwut de. <laughs> opposant rek. wala ñu ne wala ñu ne xar mi daa tëx. tam ñu ne xar mi day soox de. <laughs> wala daa tëx. xar mi day soox wala nopp bi daa nangam wala béjjën bi day nàcc. waaye mhm. moom foo foo jaar ñu sikkal mais daal. Mhm. président dimbale na nit ñi. man de gëm naa ne mënoon na jënd xaru mille waaw te kenn du ci am dara loo ciy lam-laamee. Mhm. waaye bu demee bay taxaw di fay ay cent cinquante mille image bu mu bëgg a joxe la. Mhm. waaw nit ñi dañuy jënd loo xamante ne parce que tabaski aussi du pour yàqan. Ah. déedéet waaw pour jaamu yàlla la dara lañ la wax na ko tuur jëndal xar mu mat tabaski. mais waxuñ la nga def ci prix yoo xamante ni wax dëgg yàlla sa waay mën na dimbale ay centaines de maisons mm-hmm. donc yooyu aussi nañ ci nañ ciy bàyyi xel donc continuer leen ngeen aimer partager di remercier nag sama yaay waaw maman maman madame Cissé yónnee na ma xaalis bari nag du leen wax ñaata la nag du ma leen ci may ah, soose nag kon nag waaw maman madame Fat ñi ngi yónnee nag wax dëgg fa yàlla Fatima Niang madame Cissé kooku sama yaay la de ñi ngi yónnee Amina Ba yónnee nañ la ah man de ma lu bari eh, ah kon léegi dañuy dañ leen di jël au ah ñu ngi yónnee nag. ah man de je suis ah, man de je suis honnête ki ma nga ca Prato yónnee na ma xaalis bi bay na ma jëndal xaar donc voilà. ñun hmm, ñëpp ah, daal yàlla baax donc donc yow xam nga sa. nit daal bu defee lu baax. nag koy remercier wax dëgg fa yàlla jërëjëf yaay booy. maman Fatou Fatou Fatma remercier nañ leen bu bu baax a baax madame jërëjëf ah, kooku Cissé la kooku Cissé la madame Cissé la <laughs> faaw a a waaw ah, ah, am na am na solo ci vague de